Eh, ñoo ngi tolloon ci yonent yàlla Suleymaan bi nga xamee ne def na tawasul si boromam ngir mu may ko xam-xam yàlla ne ko na nga tànn ñett yi nga tànn muy nguur ak alal ak xam-xam tànn si benn yonent yàlla Suleymaan daal di tànn xam-xam yàlla daal di koy joxaale nguur jox ko alal ngir rek fonk yi nga xam ne Suleymaan fonk na ko xam-xam ci loolee ci la yàlla joxe nag yeneen ñaari càkkutif yooye mu ne wa an ibnu abbas radiallahu anhuma annahu qaal xuyira suleymaan alayhi salaam bayna al ilmi wal mulk wal maalu faxtaara al ilmu wa utiya al mulku wal maalu mu ne jëlee nañ ci ibnu abbas yalla na yàlla gërëm ko moog baayam mu ne tànnaloo nañ suleymaan diggante xam-xam ak nguur ak alal bim tànnee xam-xam moom suleymaan si la ko yàlla jox nguur dal di koy jox alal kon loolu dafay jàngale teddaa xam-xam fonk gi yàlla fonk xam-xam moo tax Souleymane bi mu jiitalee sàkku xam-xam tànn xam-xam boobu si la yàlla jël nguur ak alal jox ko ko ndax ci lay mën a dégg nga yor ñaari daraja yu màgg yooyu ndax bu fekkee ne am nga nguur am nga alal te amuloo xam-xam su boobaa borom xam-xam bi dina ñëw jëriñoo nguur gi dégg nga jëriñoo alal googu noonu jamono ji nag nit ñi liñ gën a sàkk mooy xam-xam bi nga xam ne nu ñuy def rek ba nax doomu aadama yi waaw muy xam-xamu xam-xamu zulumaan yi rek la nit ñi jamono ji gën a fonk te xam-xam boobu nag daf lay yóbbu rek ci kéefar yóbbu la ci caay-caay yóbbu la si jubadu ji ndax chaque fois rek yaa ngi xool nooy naxee jaamu yàlla yi ba lekk seen alal waaye xam-xam bi nga xam ne leer la njub la moom mooy gindi doomaadama yi ba teg leen si siraatal mustaqim bañ jëlee ci xam seen diine xam-xam boobu nag moom mooy xam-xamu bi yàlla gërëm ndax xam-xam ñaar la allama bil alam ak allamal insaana maalam yaalam kon ñaari xam-xam yi képp kuy ummat saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam war nga góorgóorlu ba nekk ci imaam kon nañ góorgóorlu ci côté boobu kon yonentu yàlla Suleymaan dara taxul mu diriger àdduna bi si jamonoom lu dul xam-xam kon nañ góorgóorlu ci sàkko xam-xam mu ne al ilmu salaasa ohrufin al ayin wa laamun wa miimun wa ishtiqaaqi ayin min aliyina wa ishtiqaaqi laamun min a latifu washtiqaaqi mimun min al mulku fal aynu yujawiru saahibuhu ila aliyina wa laamun yajcaluhu latifan wa mimun yajcaluhu malikan ala al xalqi mu ne lenn ci borom xam-xam yi xikma wax nañ ne al ilmu ñetti araf la mu ne ayin ak laam la ak miim mu ne ayin gi ñoo xottee ci illi yi guy firi kawe laam gi ñu ngi ko xottee ci latif guy firi ñewental mu ne miim gi nag ñoo ngi ko xottee ci mulk guy firi nguur mu ne ayin gi dafay dëkkal borom ci jannatul aliyin aliyiina waaye laam gi def koy def ku nooy ku ñewental mu ne miim gi def koy def muy buur ci mbindeef yi kon dëgg-dëgg xam-xam xoolal daraj yi daraja yi nga xam ne boo ko amee ci la lay yéegee kon loolu dafay ñuy jàngal rek ñu fonk xam-xam ndax ci boobaa rek ci la mën a xamee suñ borom dégg nga ba mën koo jaamu comme ni ko bëggee wa yaqulu yadullu ala sharifi l ilmu qawluhu taala li muhammadin alayhi salaatu wasalaam waqul rabbi zidni ilman mu ne wax nañ aaya bi aaya alquran bi day tegtal te da ngay xam-xam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam amul lenn lu ko yàlla wax mu sàkku si ndollal lu dul xam-xam yonent bi sallallahu rek la sàkku ndollal ci yàlla muy rabbi zidni ilman yàlla dolli ma xam-xam li anna laaha taala ata muhammad kullal ulum walam yaamaruhu bi talabi ziyadati xayral ilmu mu ne yàlla jox na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem xam-xam yi ànd ak loolu yëpp ñoo ngi koy sant di sàkku ci moom mu ne ko yow yàlla dolli ma xam-xam nit ki da sol ay dàll weñ nga sàkku xam-xam donte Chine la bàyyi nee na na nga na nga farlu ci yitte boobu noonu ngir am xam-xam dafa am benn wàllu yàlla bu mag bu tudd Hariri moom moo bind maqaama muy maqaamatul Hariri kooku bi nga xamee ne nekk na di jàng ci daara ji mook ay moromam dafa naqari woon xel waaye teewul moom dégg nga lu xelam naqari naqari dégg nga yàlla mujj na dimbale ko defal ko xam-xam moo tax xam-xam bu fekkee ne da ngaa yàkkamti doo ko am mukk yàlla mooy maye xam-xam dégg jamono ju nekk rekk ngay def tawasul si moom bañ a yàkkamti su boobaa ci la lay dégg nga jox xam-xam boobu Hariri bi mu nekkee ci daara ji moromam yëpp jàng ba mokkal ñu bakko si daara ji rek moom mënut a fexe ba mokkal moromam yooyu dem takki jabar ba am ay doom ba seen doom yi dem ba toll si jàng ñëwaat fekk ko ci daara ji mu nekk di jàng ak ñoom ba ñooñu noonu bokkoon ak Hariri di jàng seen doom yi dem ba mokkal bàyyi ko fa. moom Hariri Hariri ne moom dëgg-dëgg yàlla namul ci moom xam-xam ndax li tax ñii maag seen bàyyi woon ñu jàng ba seen bañ mokkal ba dem takki jabar ba am ay doom seen doom yi ñëw nekk man di jàng fii ba mokkal man mënu maa fexe ba mokkal kon man yàlla na namul ci man xam-xam mu ne sëriñ bi daal yeewu ma yeewu ma dem sëriñ bi naa ko tee ngaa rek tee ngaa rek mu ne ko yeewu ma daal ma dem ndax man bokk ma ci borom xam-xam yi noonu sëriñ bi daal di koy yeewal bi mu demee di xotti ay àll di dox ba benn dëkk moo ngi fekk benn teen ñu ngi ciy root bi mu xoolee bant bi buum bi nga xam ne moom mooy jaar ci bant bi buum bi moo ngi euh, buum bi moo ngi lekk bant bi bant bi dégg nga dagg bay bëgg a jeex mu ñëw mu ne waa leen bant bi lan moo ko def nii ñu ne ko buum bi mu ne leen buum mun na lii mu ne yàgg rek de yàgg gi mu yàgg jaar ci bant bi moo tax bant bi mel nii mu mel loolu ci la ci la am jas bu daal di xam ne ko ndeke moom yàggagul moom xariiri ci laa dëppaat dem ci sëriñ bi sëriñ bi ne ko ah, xariiri xanaa delluwoo sama kaan mu ne ko ah, sëriñ bi dama ñëw ngir fas yéene yàgg yàgg ndax xam naa ne yàggaguma gis nga kon bant bi moo ko jasbu ci yàgg gi buum bi yàgg ci bant bi ba xotteeku moom mu yëg ne kon yàggagul bu yàggee rek dina am xam-xam noonu sëriñ bi ne ko léegi saa bu may jàngale yow del toog rek di déglu gis nga kon ñu ñëwaat si dar bi njëkk a ñëw mu ne na nga bëgg boroom xam-xam dégg nga wala ngay toogaaleek moom kon toogaaleeg borom xam-xam dana la may xam-xam moo tax Hariri bi nga xamee ne yàlla def na xel mi neexul sëriñ bi ne ko kon del toog rek di déglu su may jàngale waaye jox na ko benn tur nag ne ko dee ko sikar su may jàngale noonu lu sëriñ bi di jàngale rek mujj ga Hariri loolu dafay dugg ci dégg nga xel mi du ko du ko fàtte lu sëriñ bi jàngale rek bu duggee ci xelam du ko fàtte ba mujj gi pepp mboolem xam-xam ci la dem nag ba bind téere boobu di maqaama kon dafay firi ne xam-xam daal nit ku képp ku ko bëgg bul yàkkamti il faut dégg nga nga nangoo yàgg nga nangoo muñ dégg nga waaye surtout nag nga nga bëgg ko te nangoo jàng su boobaa rek yàlla yenk wala xam-xam ba tey jëlee nañ ci hadis bi ci teddaangay xam-xam màggaayu xam-xam mu ne xaqa anna nabiyu sallallahu alayhi wa jaa ila baabil masjidi faraa sheytaan hinda baabihi fa qaala yaa iblisu maa tasnauuna fa qaala a sheytaan uridu an udqalal masjidu wa afsadu salaata haza almusalli walakin aqaafu min haza arrajulu anaa'imi qaala yaa iblis lima lam taqaf man lil musalli wa huwa fi lcibadati walmunajati maa rabbihi wa taqaafu min annaa'imi wa huwa fi lxaflati qaala alcheytaan almusalli jahilun wa ifsaaduhu asalu walakin anaimi aalimun ida axwayta almusalli wa afsadat salaatahu aqaafu min yaqzitihi wa islaahihi ajalan fa qaala alayhi salaatu wasalaam nawmul aalimi xayrun min ibadati l jaahili nettali na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dikk ci buntu jàkk ji fekk fa iblis mu ne ko looy def fii iblis ne ko dama bëgg a dugg ci jàkk ji yàqal kii di julli waaye nag ragal naa góor gi di nelaw ci buntu jàkk ji yonent bi ne ko lu tax ragaloo kii julli nga ragal kii nelaw te kii moom moo ngi ci jaamu yàlla di jokk ak boromam nga ragal kii nelaw te kii moom moo ngi ci sàggan iblis ne ko kii di julli nii ku réer la yàqal ko moo gën a yomb waaye nag kii di nelaw borom xam-xam la waaye ragal naa su ma ko yàqalee mu ñëw yee kii di nelaw mu won ko nu ñuy defaree julli gi su boobaa da ciy jële xam-xam moo tax ma far ko bàyyi ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag waxee wax ji mu ne dégg nga nelawu borom xam-xam moom moo gën kii jaamu yàlla ci réer allahu akbar kon ndeke nit dana nekk di julli 24 heures sur 24 law taabadat jaahilun xataxataxan jasadahu iraban iraban lam yasdat min allaahi ila bonda gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko si beneen hadis mu ne bu fekkee da ngaa réere yàlla di julli 24 heures sur 24 te amuloo xam-xam xamoo yàlla mu ne sa julli gi du la jëriñ dara bés bu nekk rek yàlla def lay gën a sori kon ndeke nit dana nekk di nelaw 24 heures sur 24 fekk nelawam yooyu dégg nga ci xam-xam ci la sukkandiku dégg nga ku xam yàlla la ata nelawam yooyu sax jaamu yàlla la kon nelaw borom xam-xam moom moo gën dégg nga ki nga xam ne moom mooy jaamu yàlla ci réer kon yàlla nañu yàlla may xam-xam yàlla nañu ko yàlla dolli itam mu ne wa qaala alayhi salaatu wasalaam man araada an yaxfasa al ilmu fa alayhi an yulaazima xam sa xisaalin mu ne yonent bi nee na képp ku bëgg wëttu xam-xam maa ngi lay dénk nga takkoo ak juróomi jikko yi muy lan mu ne al awalu salaatu layli walaw raqaatayni wa saani dawaamul wudu'i wa saalisatu ataqwa fi sirri wal alaami arabiatu an an yaqulla li taqwa laa li shahwaat wal xaamis wal xaamisu asiwaahu wa qaala annabiyu alayhi salaatu wassalaam xayru dunya wal axirati maa al ilmu wa sharafi dunya wal axira maa al ilmu wal aalimu alwaahidu akbar min jihatil fadli inda allahi taala min alfi shahidin wal muraadu min al aalimi fi haadihi l huwa aalimun amila bi ilmihi yonent bi salaa sallam nee na képp ku bëgg a wëttu xam maa ngi lay dénk nga takkook juróomi jikko mu ne bu njëkk bi julli guddi donte ñaari rakk mu ne bu fekkee ba ngaa wut xam-xam yonent bi nee na del julli guddi donte ñaari rakka kon julli julli lu foor la mbokk yi mu ne beneen bi ci topp mu ne ñaareel bi foo tollu del takkook njàpp dëgg-dëgg laab moom mooy genn wàllu ngëm yàlla kon nañ fonk laab fuñ ñu toll nañ takkook njàpp mu ne ñetteel bi mooy ragal yàlla ci lu nëbb ak ci lu feeñ ñeenteel bi nanga lekk tuuti ngir ragal yàlla mu ne lekk ngir bànneex xam naa ne jaween yi ñoom ak géyeen yi ak mbayeen yi ñoom lekk rek la ñuy def lekk rek léeg-léeg sax ñu lekk guddi bay gént xam naa nag boo moytul ñu dellu ca la a defoon rek lekk lekk ba biir biir bu fees ba tiim ko mu jëneer ci ay nelaw rek xool lekk gis biir bi tiim ku mu naan ku ma tiim ndeke biir bi moo ko tiim loolu moom lekk gu bëri moo koy indi te su boobaa nooy jaamoo yàlla munta nekk laa wakal laa lekk ba suur naan ba màndi nga bëgg a fanaanoo jaamu yàlla moom munta nekk fanaanee julli fanaanee jàng alxuraan fanaanaa wirdu fekk lekk nga ba fees dégg nga wax dëgg yàlla su boobaa munta ànd ak jaamu yàlla ku bëgg wut xam-xam tamit bu lekk bu lekk loo xaraam del lekk lu dagan del lekk lu dagan su boobaa rek yàlla dana la dimbale nga bokk si ñuy wut xam-xam mu ne juróomeel bi ngay soccu dégg nga soccu lu am solo la waaw borom xam-xam dafay soccu yonent bi ku fonkoon soccu la dégg nga moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ne yiw àdduna ak àllaaxira moo ngi ànd xam-xam te daa ngay àdduna ak àllaaxira moo ngi ànd xam-xam mu ne benn borom xam-xam bu jëfee xam-xamam moo ëpp ngëneel ci yàlla junni shahid shahid gis nga junni shahid muy kon junni jullit yoo xam ne dem nañ ci xare ñu rey leen fa seen deret tuuri tuuri mu ne benn borom xam-xam moom moo gën junni shahid yooyu ñu rey ci xare lu ñu namm nag ci borom xam-xam boobu ci bii mooy borom xam-xam boo xam ne jëfee na xam-xamam borom xam-xam bu jëfee xam-xamam mu ne moom moo gën junni shahid yoo xamante ne dañ leen daana ci xare mu ne benn borom xam-xam moo ko gën kon lii dafay tegte la te xam-xam ba tey si ngëneelu xam-xam ak te xam-xam mu ne qaala alayhi asalaatu wasalaam inna allaha taala xalaqa taxta al arshi madinatan maktuban ala baabiha man zaara al ulamaa faka annama zaara al anbiyaa wa liza qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa juluusu saati hinda al ulamaai ahabu min ibadati alfi sannatin seydina ali karamallahu wajhu wax na yàlla jàmm ak xéewal nekk ci yonent bi sallallahu alayhi naka yàlla mu kawe mi bind na ca aras dëkk boo xam ne ñoo ngi bind ca buntu dëkk ba képp ku ziyaare boroom xam-xam dafa mel ni dangaa ziyaare mboolem yonent yi ci lii la yonent bi sallallahu alayhi wa waxee ne toog ak borom xam-xam ci benn waxtu moom moo gën jaamu yàlla junni at alhamdulillah dëgg-dëgg kon fan xam-xam foor na lii rek dafa mel ni waxu Abu Yazid Bustaan nga xam ne dafa tarbiya taalibe bi ba àgg ci yàlla taalibe bi xëy rek toog damatul sëriñ bi Abu Yazid toog ab diir ab diir gisul taalibe bi taalibe bi bés mu laaj ndongo yi ne leen waa ana ndongo si doon sàkku ci si yàlla jamono ji lu tax ñëwatul ñu ne ko moom de nee na comme xas naa am yàlla jarat lu muy uteeti ci sëriñ bi Abu Yazid ne leen nee leen ko mu gis ma benn yoon moom moo moo gën junni at yu mu toog ci barabam di jaamu yàlla kon dafay tegtal la ne toog ak borom xam-xam dégg nga muy junni junni at yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi ko ci addis bi te noonu la ko abu yazid bustaan waxee tamit ne toog ak borom nga gis ko benn yoon moo moo gën junni at yoo xam ne yaa koy jaamu yàlla dégg kon yàlla nañu yàlla euh, dimbale def ñu dëgg-dëgg boroom xam-xam ndax xam-xam kat moom mooy imaam yonent yàlla Suleymaan a bés doomam feebar na loolu dafay jàngale ne xam-xam yàlla si fu ne rek la ko def waaye buñ dajee rek mën a yokkante ci xam-xam. moo tax Souleymane mi nga xam ne jamonoom dirigé woon na àdduna bi ndax wax nañ ne ñeenti ñi ñooy mësa yilif àdduna wëngal képp ñaar ñu jullit lañ yeneen ñaar ñi ay yéefar lañ ñaari jullit yi muy suleymaan dégg nga ak ak ak ak Zulqarnayn yi yeneen ñaari yéefar yi moom mooy Namrud ibnu Kanaam ak Buxtu Nasar ñii seen jamono dañ ko dirigé woon si kattan gi leen yàlla joxoon ak dëgg-dëgg xam-xam Souleymane nag xam-xam bi ko yàlla joxoon dégg nga xam-xam bu jéggi woon doy la moo tax moom yilifoon na jinne yi yilif mbooleem njaay àll yi lépp dégg nga Souleymane yilifoon yilifoon na leen di wax xorondom yi di wax ak dégg nga njanaaw yi di wax ak lépp dégg nga loolu xam-xam rek moo ko may bi doomam boobu feebaree mu oote ensemble ñu ne ko yow de am na jinne joo xam ne gu mag la te xam naa ne sa xam-xam bii mën nga ko fiir ba jàpp ko su boobaa moom dégg nga dana la dana la wax luy faj sa xam-xam luy luy faj sa doom ji ndax yàlla moom moo sédd la waaye kenn ku nekk rek lam la sedd noonu ci la ci lañ ko wax fu jinne di jaar jinne bi di jaar ci la ci lañ ko wax ne fa jaar ñeent mbedd la maanaam selebe yoon la fu ñeent mbedd yi di jaar ku bëgg soow la nag si la Suleymaan yebal ay nit wax leen secret bi ñuy def ba jàpp jinne jooju loolu xam-xam moo ko may si la yóbbu nag dégg nga euh, këll soow daal koy teg si digg sele yoon bi dégg nga ak guro dina ko bëgg guro la ak soow bu ñëwee ba si mbedd ba muy jaar muy sele yoon boobu ñu di fay teg soow bi teg fa guro bi ñu ñëwee yem si soow bi rek daal euh, toog waaye xelam dalul mu xool penku xool xarfu xool ci kaw xool ci suuf gisul dara si la jël këll soow bi naan jël guro gi yey ñett këll soow la bi mu xoolaatee xelem gën a dal mu jëlaat benn këll soow bi naan mu xoolaat gisul keneen xelem gën a dal mu jëlaat beneen këll bi bi mu téenee ak moom bay waaj ko ba koy waaje jeexal ci lañ ko fiir daal di koy jàpp biñ ko jàppee di ko yóbbul Suleymaan jinne ji ree na ñetti xaqataay ñetti xaqataay yu doy waar la xaqataay dégg nga biñ ko yóbbalee yonent yàlla Suleymaan jinne ji ñu laaj ko ñetti xaqtaay yi lan moo tax mu xaqtaay ko mu ne yontu yàlla Suleymaan yow mi ñu wax ne yow yaay borom xam-xam yilif jamono ji ñëpp yaakaar la sa feebar te Suleymaan waxagu ko li ko tax a jóg mu ne ko sa feebar tey moo tax nga fiir ma ngir di ma laaj liy faj sa doom waaw mu ne ko liy faj sa ji moo ngi jég moo ngi la jege dëkkaaleeg yow dégg mu ne ko beneen bi dañoo romb benn gisaanekat maanaam seetkat am koo xam ne dafa jàpp yoon ngir tukki moom tamit mu ngi bëgg a xam ndax yoonu tukkeem boobu dina neex wala du neex mu ne jinne jinne leen te foofu ñu toog ñoom ñaar kii seet ki ak ki nga xam ne moo ngi moo ngi seetlu ngir bëgg tukki mu ne fañ toog buñ gasoon benn met rek la fa nekk ci or kenn xamul nu toll ci alal xoolal xam-xam bu jéggi dayo boobu nga xam ne di yàlla dana ko defal nit waaye dana ko defal dana ko defal jinne waaye ànd ak loolu yëpp Suleymaan moom moo yilifoon jamono jooju te ñoom ñëpp ñoo ngi bootu woon ci gannaaw mu ne ko beneen xaqataay bi mooy man mi ñu wax ne man maa xam maa maa ëpp xam-xam si jinne yi ndeke xaw ma dara ndax su ma xamoon dara te duñ ma fiir dégg nga si ñetti këll sow ñëw jàpp ma indi ma ci yow gis nga kon loolu jàngale la gu rëy rëy yonent yàlla Suleymaan bi nga xamee ne am na rendez-vous ak Balxis mu ne leen ana kan ci yéen moo may indil seesu balxiis bi si si pale bi nga xool ifrit moom jinn la mu ne Souleymane mën naa ko indi ci jóg taxaw waaye Asif ibnu Barxiya xam-xamam bu rëy ba du jinne waaye def na ko man mun naa ko indi ci xefe xippi xefe xippi la def rek bi tegu te ñooñu ñëpp Souleymane moo leen yilifoon ñu doon ay borom xam-xam kon loolu dafay euh, firnde ne ne da nga xam-xam boo ko amee da nga yilif mbooleem ñi yàlla da nga def si ñoom da nga xam-xam ñëpp dañuy topp sa gannaaw ñu xam ak ñu xamul ñëpp dañuy topp sa gannaaw waaye ànd ak loolu yëpp yow la yàlla jiital si jamono ngir euh, poids ba nga xam ne moom nga pesé ak martaba bi bi moo tax nga mën a diriger sa jamono kon daal ñoo ngi tënk foofu waxtaan bi ba àllarba ñu gën a yaatal ñu continuer bunt bi nga xam ne euh, des na tuuti. ñoo leen di ndokkeel di leen ziyaar lépp luñ ci wax rek te mu jub ngeen xam ne sëriñ bi sëriñ bi la waaye luñ ci wax rek te mu jubadi ngeen xam ne ñun ñoo matul rek ñun ñoo amul xam-xam kon yal na yàlla dëgëral euh, suñu zahir dëgëral suñu baatin yàlla defal ñu fat ak akbar yal na yàlla defal ñu xabul ak iqbal lépp lépp loo xam ne rek suñuy mébét la ci faydu bi yàlla nañu ko Mawlana Cheikh Ibrahim garantil ba mébét yooyu yëpp ñu ko allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaaril azim abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly war ngay sant yàlla ñun la jigil kese la doom si di baram